ay ci mu ngoog ñu dikkaat ci plateau matinal Allô Sénégal mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ngeen di wéy di ci ànd ak sunu ay programme ñu utali ëtt yéenekaay yi ànd ca Grégoire Ngom Grégoire ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey Aïcha jàppal nag ni ñoom waa Pastef les patriotes la ñuy àndal takk nañ seen i micro bu baax a baax fàttewuñ ko benn yoon waxtaane rek li nga xamante ne ni ah, moom mooy seenu pandaje mi ñu ah, dëgmal jàppal nag ne loole gouverneur bu Dakar na nag du am waaye ñoom ñooñee ah, ñuy xam ne rek ne benn yoon nag ñoom ñooñee daañu taxaw bu baax a baax rek investir seenu candidat jamono ji nekk rek loo xamante daal ne nañ fole ca Amadou Bari seenu manifestation daañu ko amal donte gouverneur bu Dakar lam leen di xamal moom mooy coowal lu nekk. mënuta am Vox Populi ay kaay moom ci biir xumbaare gi la yëpp la mu wax moom ma gouverneur bi nag nee na lu ni mel mënees na rek jur jafe-jafe ci wàllu ko dem ak dikk trouble à l'ordre public sax lay waxtaane jàpp leen nag ni lu ni mel am na ginnaaw kàddu yi nga xam ne rek njiital Pastef yëkki woon na ko di xam ne ni bu fekkente ni nag ñu ko rek mu dem ci wàllu ko élection réew mi dana jaxasoo moom euh, gouverneur nag di fàtte jamono ji loolee ay njeexital la rek ci li nga xam ne moom mooy manifestation yi ñu jóge ci weeru juin bi ñu génn jàpp sax na fi ñu tolloo tere gi le préfet yu réew mi yëpp daanaka euh, jot nañu ko euh, tere lii di ay ndaje ñu initier rek tukkee ca Pastef ak Benno Bokk Yaakaar jàppale nag ne fi ñu nekk euh, ñoom waa Pastef mere nañ ba futu Alhassane Sall di xam ne rek ne jamono ji nag moom li muy def ay caaxaan kott la le témoin yéen kaay moom la muy seede jamono ji rek bokk na ci Pastef mi takku ba dëgër rek des ba léegi rek ci seen pexe le témoin des rek di ci xam ne nag toll ni ëpp na sax junni ak juróom-benn téeméeri délégué ci ñeent fukk ak juróom-benn ci ay département yoo xamante ne ni am na juróom-ñett ci ay circonscription wàllu ko diaspora bi ñoom ñëpp Ousmane Sonko la ñuy feddali seen upp ak colléré l'observateur yéenekaay moom ci xëtamu njëkk nee na ab investiture bu bëri coow la nag ndaxte buñ koy xayma ñoom ñii di waa Pastef ne nañ kenn mënu leen a tere investir Ousmane Sonko waaye tamit kenn mënu koo tere bokk ci lekk wooteeg présidentielle atum 2024 moom Ousmane Sonko sax dana yëkk kàddu ndege ji jox kaka askan wi enquête yéen i moom benn bokk yaakaar daal tey ji la xëy na fang ak seen ëpp njiit muy njiitu réew mi Macky ak candidat bu consensus ba ñu fay waxtaane benn bokk Macky Sall fas yéene jiital ngir ñu mànkoo ci ginnaawam critique yéene kaay nee ñu na ñëpp noppi nag xaar Macky la daal di rek fësal yëf yi ginnaaw nag bi nga xamante ne ni xamle na ni du bokk ca woteeg présidentielle yu atum 2024 jamono ji ka muy tabb daal moom mooy ki nga xam ne ni moom moo ëllëm askan wi bokk na ci nag jamono ji guerre de positionnement ak yeneen ñu mel yi nga xam ne daal jot nañu ko seetlu ci biir coalition présidentielle bile wutali jotaayu ka Ndar Géej ak Libération yi jàppale nag ni mbiru ko mbëkk ma ma ngi fay fës ba léegi rek ak gaal ya fay suux jàppale na fi ñu toll ni limat nañ rek yeneen ñaar yi nga xam ne daal jot nañ leen a forati ca biir géej gi marine ba des tamit xam ne ne am na ci benn pagaal boo xam ne daal bëggoon na dem waaye dañu ko mujjee intercepté fi ñu toll daal jàpp leen ne juróom-ñett ci ay doomi aadama yu faatu daal moom lañu daal di lim ci li nga xam ne xew na lii di juróomi waxtu ca fajar geek daal jot nañ leen sowe fi ñu toll ni ah, la waxtaanee bokk na ci daal a jëyee yii des rek di lëmbe waxtaanu ko ah, Sénégal tàggat yaram réewuk Sénégal xam na ah, réew ya mu fas yéene janool ca éliminatoire coupe du monde atum 2026 ca zone Amérique ba jàpp leen daan ne ci lu ñeel dendu Afrique fi ñu toll ni réew ko Sénégal naka dana am ñaar ci ay derbi yu saf sàpp ci moom waaye tamit équipe yoo xam ne dana gise gisewaat ak ñoom Sénégal ci wàllu ko groupe B bi RD Congo la ca fas yéene Soudan ak Soudan ñoom ñoo nga ca tamit ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy épervier yu Togo muy fàttali nag jongante ba doxoon diggante ñaari réew yi ca atum 2006 loole sax bokk na ci tey ci li nga xam ne ah, ñu ngi ko fi waxtaanee rek ana ah, fan la yëf yi di mujjee loole stade yéen kay nee na terrain bi dana ko dalal bu baax a baax Aïcha li mooy lu tuyeeg lekkaay yi xëy fa sël ci bësub tey jii nii. am na solo mbokk yi di leen ñaanal leen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam di la Aïcha. ay gan. léegi léegi lay taw. merci beaucoup Grégoire Ngom ñu jaajëfal ko euh, ci xibaar yi rawatina nag lu ñeel ëtt yonikaay yi mbokk yi des leen ak ñun léegi léegi ñu dikkaat.